moo tax jigéen ñi ma jox leen benn kàddu dafa am benn jigéen moo xam ne dafay am nag jëm na wéy yu mel ni Sidi Kunta ñoom samay kàll lañ moo tax bëgguñ jigéen ju yiw jigéen ju yiw daf leen di déranger ñoom bànni lañ bëgg ak cancer waaw waaw am na ci ñu de am na ci góor ñu ñoo xam ne bëgguñ ko yiw de booy yor kurus tuuti rek ñu ngi lay xeelu yoo xam ne boo xamoon li ñu lay jëppe yàlla rek koo xam ne am na ci ñu ñemee tudd am na ci ñu ñemewut a tudd dafa am ci ay góoram góor yoo xam ne yàlla nañu yàlla musal ci biis yooyu nag biis yi mooy lu bëgguñu si yàlla nattu ko moom bismillah rahmaani rahim rek lu muy def rek danaan bismillah rahmaani rahim ndeketee jëkkër ji jëppi na ko jëppi boo xam ne bëggu ko ko buy teg añ bismillahi rahmaani rahim ni jaay añ bi bare suy naan bismillahi rahmaani rahim ni jaay bismillahi rahmaani rahim nit ki di ko bu jàkk ba bés ko muñ sa bés ma la ji sonal ma trop ko toll bismillahi rahmaani bismillahi rahmaani ni ah ni jaay sama ko mu ne ah, ko moo tax mu wax mu jël caabi bi tëjoon li may wax jàppatuma ban téere la waaye ku miin Alaaji Abdul Aziz naa moom mu nekk jàppatuma ban téere la ndax Sénégal moom lay affirmé joxe référence bu wér waaye jàppatuma mais am na mu ne ko ndekete dafa eh, dupliquer caabi coffre-fort jox ndaw si benn caabi yor benn te xamul ndaw si xamul ne moom dafa dupliquer caabi bi ne ko nag dimbale ma ba koofut bi moom fan yii yëpp ko kenn laal yow laa ci caabi bi mu bàyyi ba ndaw si dem marché mu doxee ko gannaaw ubbi koofut bi jël or ba ca nekkoon yëpp transféré ko yóbbu toog benn am ñaari fan mu ko demal mu ubbi koofar bi indi ma sama or yee nekk dafa am ku ma ko bëgg a tayle ji ndax dafa am lu ma soxla ndaw si yegg jël caabi bismillahi rahmaani rahim ubbi fekk or bi ci biir génne indi jox ko mu ne ko may comme or bi foo ko jëlee mu ko ah nijaay bi xam nga yónnee ko or bi ko foo jëlee or mu ko fii ci koofar bi mu ko mënul nekk ndax maa dem ci kooful bi jël or bi indiwaat ko doon la nag ndax sa bismillahi rahmaani rahim julli ji ngay wax rek mu ne ko bismillahi rahmaani rahim boobu nag moo indiwaat or bi ci palaasam ma jël ma delloo la ko ci lu mu gëm basmala dara ëpp ko doole gannaaw salaatu ala nabi li imam doon wax léegi salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi rek moo ëpp doole suñ mbokku ñaseen yi seen tarbi yi parce que man la bokk na pour nga xam yàlla foog nga xam basmala bismillahi rahmaani rahim mooy maa ngi sos samay jëf samay wax sama dal sama yëngatu sama dem sama dikk lépp ci turi buur bi ñuy wax allah ñu ne la kuy allah nga ne arrahmaan yi mooy ki yërëm bi ndéefam yépp ki ko gëm ak ki ko gëmul boo ko bëggee détaillé noo koy dégg bu yàlla téye woon ngelaw li pour ñi ko gëm rek àddina tukki waaye ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñëppay noyyi arrahim mooy ki xam yërmandeem ji jagleel ko ñi ko nangooloon fii ci àddina ba fekk ko àllaaxira ñooñu rek ko jagoo mooy rahim kon loolu mooy jëmmi tawxiid nga ñëw ci fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin mboolem xeetu cant yëpp te ñeent rek la nag sant bi yàlla sant boppam ndax xam ne kenn amul kàttan ku dut moom ak sant bi yàlla xool ab jaamam xam ne nangul na ko mu sant ko ak sant bi jaam bi sant yàlla ndax yépp ne yàlla ko bind ak sant bi jaam bi sant moromu jaamam delloo ko ci yàlla mooy ban fi yàlla wax ni alhamdulillahi alladi jaa lil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulaasa wa rubaa wa yazidu fi lxalqi ma yacha bari na ci alquran fu yàlla wax alhamdulillah fa lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi lardi rabbi alalamina wa lahu lkibriyaau fi samawati wal ard wa huwa al azizu alhakim boo ko toppee ci alquran bari na yàlla xam ngum xam ne mooy yàlla mu sant boppam balaa ko kenn di sant benn ñaareel bi sant bi yàlla sant ab jaamam ndax yëg ne jaam bii mu ngi ci lim ko sant mu ne niamal abdu innahu awwaab sama jaam bii de gërëm naa ko ndax li nekk neex na ak sant bi jaam bi sant yàlla mooy yëg ne yàlla bind na ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin yëg ne yàlla na ko ay xéewal mu ne alhamdulilahi rabbil bi sant na borom mu des nag dikko mi defal Cerno Aan wala Cerno Aan mi defal Chérif Ibrahima teraanga ma ne ko Thierno Anne mu ne am ma ne ko jazakallahu xayran jërëjëf yal na la yàlla fay kooku it sant la bu dellu ci Thierno Anne ak imam di ko waaye ci yàlla lay dellu kon mooy xeetu cant yi ñeent te yëpp dellu ci yàlla rabbil alamin ki yor yaram yépp yëpp amoo ci canti jeeg jalti jalti jeeg <laughs> yàlla rek la neex imaam wax na ko léegi gis nga bu neexoon yàlla ñépp ommatu gëm ko topp ci benn seconde la koy réglé wala lu gën tuuti seconde yàlla réglé ci li nga bëgg yëpp waaye lu tax moom jël pouvoir jox ko délégué ko jox ko iblis ne ko defal lu la neex ba ëllëg maa ngi la ñu def face ndax xam maa am wala yaa am wala maa la may wala yaa am kàttanal sa bopp patience boobu yàlla am ba jox iblis te mën a écraser iblis waaye nañ ko amante ci suñ biir di jéggalante di yërëmante di baalante di dimbalante moo tax cëpp-cëpp ji yëpp yàlla la neex de Serigne Cheikh daf ko daan wax boo gisee ngeen baal ma ma koy cité dafa am xam yu bari yoo xam ne boo ko del siwaatee rek dafay mel ni bees Serigne Cheikh daf daan wax ni mu ne mag mu taxaw ne yàlla amul mu ne loo ci man mu ne mag mu taxaw ne yàlla amul loo ci mën mu ne mënoo ci dara mu ne waaye lam na fut la ju day nag bu ko neexee benn bëccëg rek mu fen loo waaw mu ne mbaat ndax borom kër bu xëy rek ŋaaw boppam tëdd ci kaw la jabaram tiim ko maa woy sama ndey woy sama ndey woy sama ndey defaral ma ruy bu woyof mu ne mu ngay càllit bi mu ne mu woyofee nga naan defal ma <laughs> ah, mooy nit ki bu feebar rek sibiru rek sibiru rek bu la ko yàlla nga xam ne yàlla buur loolu am lekk dootu ci tuuti limon ak tuuti kaani xam nga ne dee teg sibiru kese nga saalit ba ñëpp di la dégg kooku xaj na ci yow kooku xajul ci yow master rek yeneen ak yeneen sibiru na ci ñun kon wéetal yàlla mooy jëmmi fatiha waaye du ma fi nekk di ko firi day day guddal ci yéen dama koy indi ci lu ñuy dund fatiha mooy i alhamdulilahi alamin arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy jëmmi tawxid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mooy jëmmi tawxid ihdina siraatal mustaqim jëmmi tawxid siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin amiin yaa ngi war yàlla ne ko xamuma de waaye bëgg naa lu baax na te ci yow laa bëgg a jëm si gis naa fi sàmba gis naa fi demba gis fi lu ne waaye yëpp naa ne yow benn buur bu fi nekk bu mën a régler problème yëpp mooy yow kon maa ngi ittewoo jëm si ci yow dimbale ma te bu ma jaarloo ci yoon yi nga xam ne ñoo échoué fa lañ jaaroon looy fàtte waaw loolu nga di ko moo tax yàlla imposé la julli bu nekk rakk bu nekk obligatoirement nga jàng fàtte sooy naafila jàng faatiha ñaata yoon ngay jàng faatiha ci journée bi te mënoo yëg ne faatiha mooy jëmmi tawxiid bi ci des wéetal yàlla jarul sori yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw bés fekk saxaaba yi kenn ku ne mu ngi jël ko ci diggante ñaari oomo ndax yonent bi moo leen daan sant ne bu ngeen toogee bañ seen njàpp gaaw a toog ci jàkka ji di xaar julli te julli ñëwagul da ngay yëkkati say oom teg sa sikkim ci sa ñaari oom comprendre ngeen li ma wax ah, kay mu ne soo ko defee doo nelaw ba jaayant sa jàpp du toj mu fekk nag saxaaba yëpp a ngi jël seen sikkim def ko ci seen diggante oom mu ne fa fii ma tafakkaroon ci lu ngeen di xalaat ndax yonent bi day xam lu ko kenn waxut ku dul borom ñu ne ko natafakkaru fillaahi ñun daal yàllaa ñu ñaax yàlla lañ nekk di xalaat nu war a mel fu mu war a nekk ndax li mu amee doole ak li def yëpp te kenn mënu koo gis moom la ñuy xalaat fu mu nekk ak nu mu war a mel ci mel ne leen juum ngeen bu leen xalaat fu yàlla nekk bu leen xalaat nu mu war a mel xalaat leen ci li yàlla bind ñi rek xalaat leen ci li yàlla bind ma indi ci ñaar ñaari aaya laa ciy indi ah. day bu bu benn bi daanoo da ñaareel bi daanoo rek nga yëkkati waaw saf naa ree nag wax dëgg yàlla ah, kay xam nga mooy ban ah. alladina yazkuruna allah baatu zikri bi nga doon wax ñëw alladina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana maa xalaqta haadaa baatilan subhaanaka faqinaa adaaban rabbana innaka man tudxili nnaara faqad axzaytahu wa maa lizaalimiina min ansaar rabbana innanaa samicnaa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu bi rabbikum fa aamanaa rabbana faxfir lanaa dunuubanaa wa kaffir cannaa sayyi'aatinaa wa tawaffanaa ma'a l-abraar rabbana wa aatina maa waadtana ala rusulika wala tuxzina yawma alqiyamati innaka la tuxlifu lmii'aad subhaana dil mulki azimi daayimi daayimi subhaana dil mulki azimi daayimi daayimi subhaana dil mulki azimi daayimi daayimi سبحان ذي الملك عظيم دائمي لخج كو سبحان ذي الملك عظيم دائمي لخج كو سبحان ذي الملك عظيم دائمي دايمي سبحان ذي الملك عظيم دايمي لخجك سبحان ذي الملك عظيم دايمي دايمي ولا ملكوت خالق العوالم عوالمي منهجنا يا خالق شيطاني شيطاني من كيده وصل بالإيمان إيماني وجور في سلطان والجيران جيراني يا ربنا ورفع النيران نيراني وكل مودل عن طاعاتي طاعاتي يا ربنا فاقض لنا الحاجات حاجاتي وشر كل حاسد وحاسدا وحاسدا وكيد كل كائد وكائدا وكائدا والمفسد بالدين والقراءة يا ربنا وموجبي شقاوى شقاوى وثقت بالله وبالكتاب وبالنبي مصطفى الأواب أواب أدعو باسم الله والمساني مساني وآية الكرسي ذي المعاني معاني وسورة الإخلاص ذي تمجيد وفاد من مات مع توحيدي توحيدي وفاد من مات مع توحيدي توحيدي ومن دعا بذي على اليقين يقيني بجاب ما رام من المتين لقد مجيب يا مجيب يا مجيب لقد مجيب يا مجيب يا مجيب لقيتك مجيب يا مجيب يا مجيب سبحان الله لقيتك مجيب يا مجيب soppiyo nen loxo yi ca kaw mujibu ya mujibu ya mujibu sopp sëñ Babacar ca kaw mujibu ya mujibu ya mujibu soppiyo nen loxo yi ca kaw mujibu ya mujibu ya mujibu soppiyo nen loxo yi ca kaw mujibu ya mujibu ya mujibu yaa ñu koy firil Chérif yaa ñu koy firil mujibu ya mujibu sharif yaa ñu koy firil mujibu yaa mujibu yaa ku sopp sëñ Babacar loxoy mujibu yaa mujibu yaa sharif yaa ñu yaa ñu koy firil mujibu yaa mujibu yaa waa reena ngi ñu koy firil يا مجيب يا مجيب مجيب فقبل دعاء وجل القريب قريب نسألك تسليمك بالقضاء وصبر الرضا لدى البلاء بلاء المصطفى شافع كل الخلق الخلق فبالإله منطقي في الحق في الحق أتكى صلاة الله وتسليمي تسليمي على الذي أشرب تسليمي تسليمي رآني wane ne fii fi nekk keneen newu fi yàlla lañ samp set leneen leneen lu yàlla mag ñi mënoo ci jàmm kenn gis na la ku bëgg a jàmm mag ñi seet taalibe boo xam ne mu ngay zigzag nga sukkandiku ci taalibe boobu pour jàmm mag ñi sukkandiku ci lislaam bi pour jàmm lislaam bi ñaata doon jullit yu woote woo jullit di dëpp seen ji ci suuf umra ji waxuma la nag gars yi booy wax rek léegi léegi dañ koy soppi dem di umra ji dem di aji duñ jóg màkk te sàngara si ñoo koy naan dem jeex nag ñaata nit ñaata nit ngay gis ñuy dem màkk te duñ ci est-ce que ñoom mën nga leen génnee ci biir jullit bi ah du jeex Sénégal bii moo ci raw Sénégal moo ci raw ngeen baal kon te mënoo leen génnee ci biir jullit doone duñu ay jullit ay jullit lañ waaye jullit ñuy def lu juuyoo li lislaam bëgg na jullit ñu juum lañ te jullit bu juum nag mënoo ko génnee ci biir jullit parce que bu ko yàlla di jéggal doo ko fekkee dama am sama benn xarit euh, sama mbokkum saalum saalum waaye nit yàlla piir la nag Babacar Ndiaye rek la doon ba mu wóor ko ne nit ñi adopté nañ ko sax na ci seen jikko seen jikko defaru na yàlla door ko jox nag santaan yi alaay jëm daal si moo naan ne nit lim tàmm mu yëpp ko tere lool ci benn la ci bu dee yaa koy mu ne kii toog yéeguloo naan sànga doxal jiw nga xëy ne ko yëpp nga bàyyi ko tey nga dee tey mu ne léegi ko wax da ko naan bàyyi mu bàyyi ko nga la ko bàyyi xel mu bàyyi xel yonent bi def na ko benn saxaaba saxaaba bi dafa ñëw ne ko bëgg naa tuub waaye sa diine ji li mu santaane dafa bari mënuma ko baax mun na ko bàyyi xel Serigne Mansour bu Serigne Cheikh mu ngi fi mooy taawu Serigne Cheikh sama gàmmu kii bi muy conférence quatre vingt quatre vingt dix neuf wala deux la ci mujj ñëw boo mënee jógee Sénégal yi ñëw pare ba léegi delluwaat même bi papam génne àddina sëñ Abdou bi mu ko ne ñaanal leen ko rek waaye man mënu maa ñëw ba muy ñëw pare dafa ma ne chéri ma ne ko am ma ne ci ci Sénégal xaw ma ko maa ngay def ma ne ko kon de loolu gis ndax du fi ñëw ba léegi mu ngi fi te kenn mënu ba nga koy nettali ci conférence ah, maa ngi toog mu ne Sénégal daal ñu mën a feneen jaaxal na mu ne ma benn mu ne benn waaye ñëw barki bii ci kër ga ñu toog di reer mu ne mbir mu xullee faatu benn mbëru làmb la bu newoon Sénégal nee na ma ne ko ah mbir mu xullee kay la mën a faatu te kenn yëgu ko ak ñun siiwee Sénégal mu ne ko lii mën a faatu. bi ñu koy wax kii naa ci jaar ci sax xam nga moo dugal bu doon defal rek faatu na xëy na def la waaye maa ci ci jaar bi fàtte ne preuve la gis nga fenkat pire day fen de fàtte ne fenoon na nii nee na seen si am ne dañu toog 15 minutes matu 15 minutes mel ni ko la ñu te moo wax ne mel ni ko la nee na ñëpp ko xool nee na mu jékki-jékki rek nooy maa bàyyi àddina bàyyi ma waa àddina kat yow àddina la baax mu ne ko xanaa da nga fàtte ne maa téye ci jaar preuve la lu ko xanaa da nga fàtte ne maa téye ci jaar ji preuve la boo noonu dama xam ne dama xëy na école waaye bañ koy suul jéego maa téye ci jaar ji mu ne ko fàtte ne preuve la te loolu nag mooy Sénégal gis nga wax boo ci topp da ngay dégg naa rek dégg naa dégg naa dégg naa balaa ne maa gis wala maa xeble c'est un petit problème moo tax taw yi jikko lay defal moo tax nag gis nga aaya ma jël yàlla kenn du xalaat nu yàlla mel ndax laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir loolu yàlla looloo niroo rek. ñooy nga sa bopp ndax yàlla niroo la dara laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir laa tudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaara wa huwa al-latiiful xabiir foofu beneen sew sew la ana rek lañ ñu def yàlla waaye yàlla dees na mu gis yonent bi gis na yàlla nan ko gisee nag kenn du ko gisee fekk fekk kooku waaye yàlla des ko gis ak dara kër lañ mën mooy li ma doon wax léegi alxuraan baat yi lañ war di def te dëggul dërk mooy ndar kepp comme nii ma toogee nga baal móod ma toogee lii la gis nga xam ne yaay móod xam sa ndeyjoor xam sa càmmoñ fu mu yem xam sa gannaaw fu mu yem xam sa kanam fu mu yem xam sa la kenn mën a am fayda ñi nga xam ne dañuy xalaat yàlla ci buñ toogee buñ taxawee buñ dëggee bu ñuy lekk bu ñuy naan kebet rabbana maa xalaqta haadaa baatila yàlla xam naa ne bindoo ko ngir neen subhaanaka dunaa sak set rabbana innaka man tudxil naara faqad axtaytahu koo dugal safara gàcceel ko kebetu kebetu ba jeexal xam nga lu yàlla def inni laa uliu amala aamil gis nga jëf rek moo ko andi yàlla ne sa kebet bi yëpp bari na dégg naa waaye man daal lu ma nee na jëfu aji jëf jëf moo ko andi boo fi naan wax nga mën set gis nga julli li muy foor foor foor yàlla mënoon na la bàyyi nga kalifaat yi rek dem sa yoon waaye lu ci indi mag mu sëkk lu ko indi si lu ko indi jël sa njëmi ne ko ràpp ci suuf lu ko indi yàlla dafa bëgg li ngay wax dëppoo ak ay geste moo xam ne dëkk la ci yow geste yooyu la yàlla soxla moo tax mu ne la ko war waaye loolu ko lu ma jëriñ daal jëriñ ko la ay symbole la nag nga sikki lu muy jëriñ daal nga jël sa jëmee ro ko ko ci suuf lu muy jëriñ daal jëriñ ko la waaye ay symbole ya yu yàlla bëgg mu dëppoo li ngay wax moo tax jëfu kese du konte waxu kese konte ma jëf la aamilin miin ko waaye gis na li imaam doon wax ñoom min zakarin aw unsa ku jëf ñay góor jëf ñay jigéen du ma nee nag jëfu kenn danaa la fay inna sha'yakum la shatta yàlla na ko ne li nga jëf laa lay fay beneen bi ci des mooy wa fii anfusikum afalaa tubsirun boobu mooy jëmmi bi xam boobu gën a garaaw ci ay alxuraan wa fii anfusikum afalaa tubsiruun yàlla de bu ma jeex fenn di tooñ barab yooyu jeexuma ci sa bopp soo ma jeexee ci sa bopp rek di ma gis te di nga xam maay kan fi may tàmbale yaa ngi noonu di xef maa ngi nii di xef ñaata yoon ngay xef ba bés xamoo ko ku fi xam nit ñaata yoon lay xef ba bés ma de gisaguma téere yi ko bind noy gis naa téere yi ko bind yonent bi wax na ne ci xadis ne nit vingt quatre mille noy lay noy par jour douze mille lay aspiré douze mille lay dégage muy vingt quatre mille kooku moom borom waxe bakkan yu ndaw ak yu yaa yu rëy ba ku noyyi paanu dara génn ñendaxit mooy gëres bi yàlla def ci biir nit muy filtre noyyi gi pour boo noyyi mën a moo tax la jabla si suwéy ko benn waaye ñëw di jàmbat soj ma ne ko soj baax na de azukaam jundun min junubillahi yusallitu llahu ala jasadi li yuxrija minhu saa'ira maa lam yakun min moo ne ko so soldaaru la ci soldaaru yàlla yi yàlla ko yebal ci jëmm pour mu dugg ci jëmm yi dajale dese yi ci nekkoon yëpp te bokkul ci jëmm yi génnee ko nga ñandu set baax na de nga ñëw xoolal tuuf li koo tuuf li te tuuf boo amutoon doo lekk mooy taxal tuuf ji mooy tax nga mën a wax sax boo amul tuuf li xoolal làmb li ban kàttan moo ko yëkkati nga dugg ci biir xoolal biir la fa yàlla def ni mu bare benn bu nekk ak fonction benn bu jaxasoo morom loolu jimbi doxe nga xool ni yàlla installé ni foofu lay tëjee sa ko wax ndax nit yàllaa ko def mu ma jeex fenn di ma xoolal nit yàlla ci nut fa la tàmbalee ak moom si perte mais nut fa de suma min alaqati topp lumb der lumb der lumb xam nga lumb loo xam ne boo ko tegee nii du tasaaroo day doon benn góor buy tourné yàlla ne moom bu ma toog par quarante jours nag la koy soppi bu toogee quarante jours jëlee ko ci man yi indi ko ci lumb suma min mu doxate doonu léema suux boo xam ne du suuxu yàpp waaye dañ ko toj dañ ko mel ni dañ ko mu ne mu transformé ko transformé ko mu mel noonu mu jógee fa ñeent fukki fan encore min mu doxate suma muxallaxatin wa xayri muxallaxatin mu ne di ko tëkk di ko tëkk boo amee quarante jours moo indi roox def nga xool nit ni mel ñii buy dox yàlla jël ko kaste ko ci biir bu tuuti est-ce que am na biir bu mat un mètre wala gis ngeen ah man de gisagu ma ko taw yi la ñuy wax tamit nañ déglu rek yàlla waxoon yàlla dama ci janax loo ci man ah dawlul nag li ngay gis ba réew mooy fi ma ñëw xaw ma ko fii na min kabalin day di ko kii dépasse jox ko jabar mu ne la su boo xum yow kenn yëngu waaye di ci dépense acc xalaxal insaan min kabalin di nga indi dépense tabax kër ci biir wax mu ne ragal te doo ci dara te man bi ngay nekk defal kenn imaam nañ delloo yàlla li mu yàlla rek a fexe moo tax mu ne summa sabila yasarahu mu ne na dara desul lu dul génn nag sëriñ baa nga toog fa léeg-léeg ñu ñëw ne imaam jàppal ci lii te ñaanal soxna si dafa doon ci diggante sànq bi maa suñu ma dégg na ma naan ah démb rek mu ngi may woo sama beneen doomu nijaay Ousseynou ma la xam na ko mu nga jóg doom ji moo nekk bari yàlla yëkkati yow ma ne mu ne ma médecin yi dañ ne février fin février la waroon am doom mais dafa sonn fi mu nekk na mu yónnee ma message ne ma soxna si mucc na xam nga kon médecin yi dañuy jéem rek waaye programme rek fii fii ni ñu amee xelante programme ko février mu am doom démb tey kon tey ci fay dafa la am doom te fin février dañ ko programme woon yàlla ne suma sali mu ne fi doom jaar ba génn xaju fa man yàlla maa indi sama yërmande pour mu mën a génn waaye xaju fa moo tax day ne balaa kenn bi jub danañ jël leeru yonent bi wicc ko yaayam pour mu mën a mucc moo tax nga gis ñépp toog naan demal ci jàmm Omar mu bindal ma saafara moom ko mos a bindal saafara dina am doom ci jàmm ak salaam demal ci imam bi ko mu ñaan médecin bi naan indil ñii ah, di kii yëpp rek daal ne ah su ma ñëw dara du sax bàyyi leen ma ñëw waaw su ma sang yi de yasalu kon nga xool fi nit jàll ak yàlla béytu du am fi nit utee ak bàyyi ma ak teral bi yàlla teral nit benn wala xam ne karam naa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiilaa moo lay war xam nga tax xar bu juddoo rek cur bi waaw ah, cur bi xam nga cur mooy bu juddoo rek dëpp ci bi ci bi fële daw ñëw seex wenn yaay nam génn ñëwaat dugg fële ba ki koy te léegi la nit judd mën na boppam dara xamoo kay su ko defee nga xool fi yàlla jaar ak nit na ba xëy nit judd mënta dox di raam di jéem toog jéem toog ñu koy def ci ay paal ak yére gisal ko de paal ko de paal moo nga def loolu la ku set xaw xoolal ñu koy joowaan kii mën naa fay ndey ndeyam amul jàmm ndax moom fi mu ne moo ko gënal mu koy njoowaan li muy dëgg yëpp kii tëdd moo ko gënal boppam moom kii mën dafe ndeyam wala ku ci màgg di bëgg a kàlla kàlla seen wajur da ngay torox parce que wajur du moom fi yàlla yàlla jaar ak yow bu dutoon wajur doo fi moom nga xool ñun ñëpp ku bëgg a xam yàlla rek xoolal lii seen bopp Cheikh Ibrahima miy wax tollu woon na fële président Macky Sall tollu woon na fële Macron tollu woon na fële doo fële kenn Trump tollu woon na waaw fii Poutine mële tollu woon na fii wala déet